ci quatrième combat de la soirée eh moom gën ko suqali doo may ma présenté wu yow Tidiane Faye 2 nekk écurie Rebeuss ak Ami Géant nekk écurie Guédiawaye mbooloo eh eh bon waaj jeex combat bi déet wala aw oh, abir busal eh gaa ngi suqante waaw xaw waaw xal xal merci beaucoup jërëjëf léegi maa xam laa Tidiane Faye moo bëgg ruus dina dara maa wax xale yi ñuy def nii waaw waaye Tidiane Faye moom la ñuy suqali Tidiane Faye moom moom la ñuy suqali suqi eh, am jaa ngi suqi am jaa ngi suqi am jaa ngi suqi moo ngi koy suqi dem na ko bët déedéet demul baaxul esewal beneen Tidiane Faye am jaa moo ñu wan ginnaaw Tidiane Faye numéro 2 moo ñu wan kanam ñaari mbër yi ngi jàpp ku nekk jàpp si morom Amza suqi na déedéet boobu loolu dem déedéet waaye am ji déedéet ba léegi boobu baaxul ah ba léegi boobu baaxul foofu di bunt ba waaye kii ko maamu mag bi ci diggante ndaw ak anu bu géwal combat boobu cu Eh, ñaari bëri suqante nañ ku nekk xam na sama lu muy saf ñoom ñaar raag nañ ku nekk xam na sama lu muy saf ñaari bàyyante waat eh déet eh, Tidiane Faye numéro 2 laaw na mu daal dal mu wàcc moo ti mu ngi koy jéem waaw waaw dina tànk ba déedéet ba ba léegi ngem gi la mujjee téye tànk ba baaxu mu jël ngem ba am sëppal naay tànk yi daal di jógaat ci bi combat ñaar xale yi Djibson production moo ñu may lii Tidiane Faye numéro deux ngay suqi Tidiane Faye suqi na ñaari suqi Tidiane Faye suqi na ko ñaari xam ne a boote ñu naan kor kor man ma naan suqi eh eh Tidiane Faye songu na waaye songo baaxul ibbi eh, ibbi na ko ñaa ngi ibbante ñoom ñaa ngi ibbante waaw waaw quatre appui déedéet trois appui nee na quatre appui waaw waaw tax sa mbata gi ni wurata gin taj temps looloy temps Tidiane Faye daan na ko.